téléspectateur yu baaxul di seetaan TMS TV ñu leen nuyu di leen ziar di leen seen wàccuwaay ñu ngi ci séance de consultation ñu gis ndaw si ñu jëndee seen ticket dugg yaayam daal di dugg mu daal di taxaw ba ñu dugg ci ki nga xam ne mooy néegu Alaaji Cerno Mulla Saw mi ngi noonu daal di dugg si sax daal di taxaw gis ngeen ko noonu yaayam daal di dugg si mu ne du dugg si mi ngi daal di dugg si sax daal di taxaw Euh, ñu forcé ko mi ngi noonu di vibrer daal di sëgg téye loxo bi gis ngeen noonu yaram baa ngi mel ne ku ñu masse courant ñi dugg daal di jàkkaarloo ki nga xam ne mooy la xaalif général des jinne mi ngi noonu di def ay kurtu kartam waaw macha allah mi ngi noonu ñu nekk ci séance de consultation yaay ma ngi nii ànd ak euh, ay rakam mu ngi nii di vibrer ba tey bi mu dugg cee ci néegu alaaji Ceerno Moule Sow ñemewul toog ñemewul taxaw mi ngi noonu daal di jàkkaarloog moom waaye di di di tuur ay xéwal nag mi ngi noonu di tuur ay rongoñ ji Alaaji mu Moule saw moom noonu lay demee ci saa su ne yaakaar naa ne jinne du ko du ko résister gis ngeen bi mu dugg see mi ngi noonu. tax mu commencé jooy nangul woon sax dugg si dañ ko forcer mu daal dugg si mi ngi taxaw. nangul moo lox loxal gis nga ko noonu. Mhm. moo jël ko moo ngi vivre balaa muy waa muy wàcc noonu di jooy macha allah ni ma koy waxee ci saa su du ko résister jinne bu jàkkaarloog moom da ngay dem vaar mi ngi noonu yow lanam yaayam si di jooy mm-hmm. nee mooy yaayam xool ko moo mm-hmm. ngi tuur rong moo ngi rongoñ xéewal moo ngi noonu moo ngi moo ngi noonu du tuur xéewal moo ngi pat pati di pat pati nangul woon dugg sax ci biir néeg bi gis ngeen ko alsene ko forcé xëcc ko waaw ñoo ko forcé gis nga ko mi ngi noonu di du moom nag li mu àndal la di vibrer waaw du moom li mu àndal la jël ko bu baax boo fi nekkee ànd ak li nga xam ne moom mooy mauvais esprit yi wàllum jinne rab dëmm mhm. yëpp boo duggee fii kër àlaa mu Moule saw yaakaar naa ne sa yaram dafay am lu mu yëg li nga àndal day yeew jëlal jëlal jëlal mi ngi tuur rongoñ mi ngi jooy mi ngi jooy mi ngi vibrer ndaw saa ngi taxaw mi ngi jooy mi ngi mi ngi vibrer xale bi mi ngi jooy daal di vibrer ba tey nangoogul wax pour mu duggoon sax ci néeg bi yaakaar naa ne problème la la xalif général de jinne l'empereur nii lay demee ci saa su ne jinne bu jàkkaarlook moom rek da ngay am ci li ngay yëg li yàlla mayoon yonent yàlla Souleymane rek dafa dellu siwaan may suñu waaju lu ko lu ko raw mi ngi noonu jinne baa ngi noonu di jooy mm-hmm. xanaa dañuy jàkkaarloog yaayam wala ñu wala ba nga jëflante jinne bi ba pare moo ngi noonu jël bi nga xam ne nangul woon dugg mi ngi dugg si di jooy di vibrer mi ngi tuur xéwal rongoñ yaa ngi tuuru mi ngi vibre jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy xalif général des jinne l'empereur le king of the king bien préparé sponsorisé par Allah ni lay demee ci saa su yàlla mayoon yonentu yàlla Souleymane jox na ko lu ko raw jinne baa ngi noonu di ki nga xam ne moom mooy xalif général nangu ko xool sax daf ko woon ginnaaw ah. Mhm. nanguwul dugg ci néeg bi dañ koo forcer mu dugg mhm. moo ngi jooy mhm. moo ngi jooy ko moo jooy bu yàggee foofu dana taandox bu yàggee néeg bi dana dana dana inondé néeg bi dina inondé de waaw gis ngeen ko moo ngi jooy bu yàggee néeg bi dina inondé gis ngeen rongoñ yi moo ngi jooy moo ngi jooy ba tey kenn laalu ko dugg ci néegu xalif général rek mu commencé jooy bu yàggee mu inondé yàggee mu inondé de jooy yàgg na taxawaay bi yàgg na te ba tey mi ngi wan ki nga xam ne mooy xalif général ginnaaw nangu ko xool macha allah ni lay demee ci saa su ne ak sëtu segalon bi ni lay demee ci saa su ne ak sëtu yoro tengala kuli tengala ak ni ma tengala ni lay demee ci saa su ne ak la xalif général day jinne macha allah jinne sayaatin ñemew ko amul benn jinne boo xam ne ne yàlla bind na la ci àdduna ngay sëtu iblis nga ñeme ki nga xam ne ne moom mooy Thierno Moule Sow kun fa yakun amul jinne bu mu jàkkaarloo da ngay wàcc da ngay dem vaar ba zéro mi ngi noonu he he c'est qui c'est qui fofoolu funnaange amaru yaw hirnaange inna allaha anna allaha billi baadi bashiran jinna bashiran jinna fofolu funnaange amaru yaw hirnaange inna allaha anna allaha billi baadi bashiran jinna bashiran bashiran bashiran jinna fofolu funnaange amaru yaw hirnaange inna allaha anna allaha billi baadi billi baadi billi baadi billi baadi billi baadi taf na nopp yi ngoone billi baadi xam nga ne nag am na yeneen jinne yi nekk ci biti mhm. baaful bi nag suñu suñu taalibe faama sow mule macha allah moo ñu jëndal baaful yi dafa cher nag macha allah xaalis bu cher la ko jëndee Fama Sow Moulé moo ñu jëndal baaful moo ngi fële ca France. Mhm. jox ko Ousmane Ousmane jënd baaful yi vraiment mu ne ko jébbal ko sëriñ bi Ousmane def transport. Mhm. kon nag Fama Sow Moulé a jaar a jaaraama macha allah taalibe bu dëggu la. Mhm. comme taalibe yëpp macha allah ñoom Ousmane ñoom ñëpp ay taalibe dëggu lañu. faw faw lu fuun amaru yow hir naange amaru yow hir naange amaru yow hir naange yow hir inna allaha anna allaha billibaadi bashiran jinna monoko be tolotege talatege jinne yaa ngi répond foofu ci biti dafa mel ne jinne yaa ngi bërëngu ci biti nekk ci biti faw faw lu fon naange amaru yaw hir naange inna allaha anna allaha billibaadi bashiran bashiran bashiran bashiran bashiran bashiran ni lay demee ci saa su ne wa koy dafa tokki xam ngeen tokki mhm. bashiran jinna fawfalu fu naange amaru yaw hir naange inna allaha anna allaha billi baadi bashiran bashiran bashiran jinna bashiran jinna Bachiran Jinna le Khalif général des Jinne Thierno Moule Sow le king of the all the king Thierno Moule le roi des djinns Thierno Moule Sow le king des kings macha allah ko bi tooloo tege taalaa tege jëlal yaayam moom it mbaa moom it am na ay kurtu karta de yaayam a ngi jooy de ki mooy yaayu xale bu jigéen bi kii nag suñu benn taalibe bu ñuy wax kali Kalidou Sokoma ay mbokkam lañu macha allah njabootam yi bëri defal naa leen ay ñaan moom Kalidou Sokom ñoo ngi koy nuyu bu baax ay mbokkam lañu moo leen fi yabal moo ngi nekk ci association Daarullahi bu Sénégal nga xamante ne Alseeni Silla moo ko jiite Kalidou Sokom ay mbokkam lañu ay mbokkam la fi yabal waaw mbokk yi kon nag gis ngeen la xalif général des jinne xale bu jigéen bi pour mu dugg ci néeg bi problème la ndax li mu àndal la dafa ànd ak rab bu bon ànd ak ay jinne ànd ak ay shayaatin pour mu dugg ci néeg bi problème la alseeni moo ko xëcc mu forcé ko mu daal di dugg sinon du nangu dugg macha allah ñu consulter tuuti après ñëwaat ngoone nga laaj yaayam mu wax lan mooy problème bi. mënoo ko bi. tooloo tege. talaatege allahn kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenjiti jinna monokoɓe tolotege talatege monokoɓe tolotege ley uddi dow uddi hakkunde ndenjiti jinna monokoɓe tolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndengi di kidon ko jinna mono koɓi dolotege talatege allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon jinna sëñ bi dafa mel ne ci biti mi ngi sens de. ci biti am na ay jinne jinne yaa ngi foofu jàkkaarloo la xalif général des jinne le king of the king. le maréchal le king of the all the king. le king all the king. c'est pas le king des kings le king of the all the all the king. yes le roi. ku nangu rek yar bi dalay dal. avec le roi des jinne Thierno Moule. <laughs> le roi des jeans Thierno Moule l'empereur yaakaar naa ne dafa wuyu turam waaye nag. tur mu gaaw mu gaaw caméraman mu gaaw mbay. waaw na leer na gaaw ci biti foofu a ngi sens mu gaaw. ndax ci biti mi ngi sens macha allah. ëtt bi mis na yooyu bërki ne boo njaay fii kër gi keroog dafa mel ne tuq sa bënn saañ bay réer jënay di jol jalaanoo mbir mii dafa mel ne luuma jinne daf may fàttali plage Beseyawoo fii sëñ bi daan dem macha allah fa mu daanele le roi xaaxaa ndax barki démb fii jinne dañ fiy salfaañoo vite fait bi daal di génn macha allah jinne daal di daal di bërëngu ñii di vibre ñii di daanoo gauche ñii di daanoo droite sama waa ji borom kun fa yekkul sëtu segolon bi sëtu yoro tengalaa kuli tengalaa ak niima tengalaa sama waa ji nga doonu ci xam-xam fekkoo leen fi ñi nga doonu ci fit fekkoo leen fi ñi nga li yàlla joxoon yaranti yàlla Souleymane desuwaat na jox na lu ko raw macha allah le king of the kings macha allah brodé damm l'empereur yaakaar naa ne mooy borom baatu baatin bi waaye mooy bëtu borom bëtu allahu muhammad bi macha allah jinne du ko résister baatam sax baatin la fu ko jinne déggee day wàcc mi ngi noonu mooy borom kiti saaya booy borom baraya saaya sama waa ji kenn moom. jërëjëf Ngoné euh, defe naa ni euh, ku wax plage BCEAO tudd Kaolack Ndangaan ku wax Kaolack Ndangaan tudd Mboose Kumba Jigéen defe naa ni jour bi dugg sëriñ bi duggee Kaolack. defe naa ba dugg ci stade lamin géey bu Kaolack ànd ak euh, suñu yaay ju baax ji suñu yaay ju sell ji di soxna ajaratu Mariama Kamara defe naa ne keroog Kaolack vivre na Kaolack yëngu na fu jine ne ci Kaolack rek da ngay gis ñëpp di daanu di jóg ko daanu kon dañuy profité di ziare waale Cheikh Baye defe naa ni foofu sëriñ bi marqué na fa ay empreinte am euh, boobu ba léegi ba mu fa jógee ba léegi la fa bàyyi pënd mi euh, muy riir ba léegi kon kenn du alaaji Thierno Moule Sow kon ba léegi yéen a suivre sur la TMS TV di télé bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbu ak le xalif général le roi médecine traditionnelle du monde the king all the of the king euh, di Alaaji Thierno Moule Sow kon sëriñ bi ñu ngi lay ziara la jox sa wàccuwaay. jërëjëf Moustapha jërëjëf Ngone jërëjëf TMS TV mbokk yi kon nag macha allah ñu ñu yëngalaat tuuti. waaw macha allah soxna si ñu lay tooloo tee taalateeke allah kan tan annabi kan tan uddi dow uddi hakkunde n tenciti kidon ko jeenama ah oh, sa yaram day xasal jël laajal ñu fi jaaroon nga ne dégguñu tey yow tey dama lay rey yow dang may rey tey yow ne tu parles avec le meilleur de sa génération ah, ah, ah. Tu parles avec la solution des djinns, tu parles avec le juge des djinns. dang may rey. yow dama eh, kun fayakun Thierno Moule. nee na day rey ki nga xam ne mooy le maréchal nee na day rey ki nga xam ne moom mooy l'empereur laaja le roi xaaxaa wala nga laaj maam yande wala nga laaj jinne bi naan gul de wala nga laaj première ambassade iblis nga laaj deuxième laaj troisième laaj quatrième laaj cinquième wala nga laaj ki nga xam ne mooy ninki nan ko oh jinne xasan jinne da nga arrière wala. yaa ngi bàkk ku mën combat. yaa ngi bàkk ku riis yaa ngi bàkk ku am doole yaa ngi bokk ku jàmbaar Thierno Moule Sow kun fayakun le juge des la solution des djinns l'empereur borom vite fait borom volcan joni joni borom t-shirt action réaction yi borom bàgg miracle la ilaha illallah le millionnaire le Seydina Mohamed l'homme social sallallahu alayhi wa sallam macha allah ki génnee 70 millions def ko ci askanam ci laylatul xadar bi génnee ay million yu bëri tubaarikàlla macha allah di def social di dimbali nit ñi li yàlla mayoon yonent yàlla Souleymane mu dellu siwaat may ko lu mu lu ko raw ci fit bi ci jàmbaar ci le xalif général des jinne barki Dembo Ndiaye combat vite fait la ñu woote ñu xool tey xalif général lu mu indi yow jinne nga ne bul arrière. da eh, ngaa toog bul daw. mbele mbele. mbele mbele coow la te ci pindum teel gaa yu amul baal la fii ku am baak yoor nga root dem sama waa ji borom kun fa yakun yaa fi ne autoroute à péage ngi nii ku mën da ngay dawal ku mënul da ngay rom ana ñoo la doon dem nañ vaar sama waa ji yaay l'empereur yaay king of the king saal bi fi nga wàccee guldekum saal bi fi nga wàccee première ambassade saal bi fi nga wàccee deuxième saal bi fi nga wàccee ninki nanka waaye tamit fi nga wàccee nga xam ne mooy lëg mbay océan waaye nag yaa wàccee ki nga xam ne ne mooy mboose bu Kaolack tubaarikàlla macha allah sama waa ji jëndal taw la oh jinne yi amu leen sens tàccu leen borom kun waay tàccu leen les frères rouges qui détectent les mauvais esprits le mara bien préparé et par Allah lay demee ci saa su ne di leen fàttali nag ziar bu mag bi nga xam ne taalibe Thierno Moule saw yi ci àdduna bi macha allah muy jeudi le 10 mai taalibe ñi nga xam ne ne Thierno Moule saw dafa jëflanteeg ñoom ci baatin macha allah ñii mu génne leen ay jinne ñii ñu bëgg ko ñii ñu sopp ko def ko taalibe mooy ziar bu mag nga xam ne mi nga amee fii ci clinique bi kon nag képp kuy soppe Thierno Moule Sow ku ko bëgg ku ko yaakaar Thierno Moule Sow dama ne le 10 ñu ngi leen di invité fii day wàcc ba zéro macha allah te Thierno Moule fu ñu nekk jinne dañ fay nekk. kon nag ñu ngi invité ñëpp jinne baa ngay jaayu de man lu ma ci jaaxal nee na moom day rey kenn mu le saw te jinne baa ngi ni dem na vaar ba pare sa waay la solution nga jàkkaar doomu ajaratu Mariama Kamara bi sama waa ji la solution nga jàkkaar loola juge des jin sama waa ji satu yoro tengalaa nga jàkkaarloo kuli tengalaa ak niima tengalaa sama waa yaa ngi jàkkaar loolu waa d'Afrique yaa ngi jàkkaarloo le roi du monde yaa ngi jàkkaarloo ki nga xam ne mooy l'empereur kii nga xam ne ne li yonent yàlla ma joxoon yonent yàlla Souleymane da koo jox moo ngi noonu mooy ki nga xam ne mooy Thierno Moule Sow kun fa yakun moo ngi noonu ana jinne yi ana shayaati ni kuy jinne jógal jaayu sama waa ji yóbbu la ba zéro wàccee la ba vaar ana jinne yi tamit ngeen di delloo avance Moustapha mbir mi tey dafa mel ne sens na de tey day ala ma de dafa mel ne ne combat de l'année laa fi gisaat combat vite fait tey moom defe naa ni euh, tey du yomb te xam naa ni comme d'habitude euh, sëriñ bi dana ko wàcceeti ba ba zéro nga wax lu am solo nag euh, ñu bëree bari dem nañ ci saaku yi te ñi demoon ci saaku yi ba léegi amuñu fu ñu fu ñu génnee ci roon saaku yi kon defe naa ni jinne ji li mu wax tey nag lu garaaw la ba yëngal sëriñ bi mu génn ci biir. daal di ñëw ci bit parce que li mu wax xam naa ni euh, lu waaye doon jaay léegi mu lamb dana leer waaye nag lii miis nañ ko ci kër gi saa su ne jinne ñëw ci kër gi défier sëriñ bi tëkku ko waaye yàgg-yàgg ci suuf rek defe naa ni Thierno Moule Sow mooy ki nga xam ni moom rek moo mën a wàccee lu mot juróom-ñaar fukki kaamil soixante di kaamil defe naa ni loolu loolu loolu du caaxaan ngoone ak as ngir askanam alors defe naa ni jinne euh, bi gën a euh, dangereux ci monde bi muy le Ruahaha bi nga xam ni moo moo daaneel bateau le Joola ba daaneel bateau Titanic dix mille komba zéro defet defe naa ni kooku moom la sëriñ bi jëflanteel ba pare duma ko téye ko fii ci kër gi kooku mooy ceex Thierno Moule Sow di le roi mooy jinne bu mag bi ci Ndakaaru nag foo ko fàtte ak bar mboose foo ko fàtte ñëpp ci keppaaram la yeewoo kon nag bañ bañ bañ bëgg mooy la yàlla moom la fi yàlla teg moom li yàlla joxoon yarante sa yàlla Souleymane dafa dellusiwaat jox ko lu ko raw moo tax jinne yi buñ ko gisee comme ni ma koy waxee ci saa su ne ndax boo demee hôpital docteur bi yor na li nga xam ne ne moom mooy tension meetam yor na li nga xam ne ne moom mooy ay comprimé na li nga xam ne moom mooy ay ay ay ay num ay comprimé woog ay yëpp ay kurtu kartaam waaye mu Moule saw yor na vite fait yor na volcan yor na t-shirtam yor na leneen ak leneen waaye jëlagu ci dara jinne bi jàkkaarloo la def rek sëñ bi daal di tudd rek li nga xam ne mooy kii di jëmba yaar ak jëm te nee na nag day ñëw pour rey si Thierno Moule Sow médecin boo gis am na ay jumtukaayam yor nañ suñuy jumtukaay de te dara jubagu fi cay Thierno Moule ay waaye tàccu leen les bras rouges waay tàccu leen kun fa yakun jinne yaa ngi ci li nga nekkoon ba tey oh ñemew jàkkaarloog moom nga ne danga koy wàññi. munoo ko bi. tolloo tege taalaa annabi kantan. munoo ko bi. tolloo taalateege allan kan tan annabi ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidankol jinna monogoɓe to lotege taalateege allan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidankol jinna monogoɓe to lotege taalateege allan kan tan annabi loolu way ah Ngone. suñu waa ji kenn du moom. suñu waa ji kenn du moom. suñu waa ji kenn du moom. kii mooy le xalif général di le roi médecine traditionnelle moom la ngeen tàccul ma sëriñ bu baax a baax. waaye Ngone fii nag tey du yomb parce que gis naa yeneen ay jinne yu baree bari fii ci biir. monoko bi toloo tege. ta laate guehe allahn kan tan annabi kan tan ley uddi dow uddi hakkude dejjidi kidonkol jinna mono koɓe to loote guehe ta laate guehe allahn kan tan annabi kan tan ley uddi dow uddi hakkude dejjidi kidonkol jinna ta cullenmo sérigne ƴuway sohno ngone waaye doon jaay tay mu lamb de wono ko allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde dañjidi kidon kon jinna kiti saya ceerno mule sow boloya saya wonande allah saginande allahu wonande allah saginande allah wonande allah saginande allah hulu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo alfayu jayre alfayu Eh, durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi saamse saamse saamse saamse saamse saamse samarosi saamse saamse saamse samarosi ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን ሳምስን Samsi. Samarosi Djine. Samsi. Samarosi Djine. Samsi. Samarosi Djine. Samsi. Samarosi leen ma sëriñ bi bu baax a baax a baax. tàccu leen les frères rouges qui détectent les ay jinne yu am doole lañ ay jinne yoo xam ne melukaanu malaaka lañ am xajuñu ci benn jinne Samsi Samarosi. Samsi. Samsi. Samsi. Oh, xajuñu ci benn jinne. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Oh. Thierno Moule Sow. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Kiti saya. Polo ya saya. wonande allah saginande allahu wonande allah saginande allahu hulu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo hulu allah jomiraɗo hulu allah vibre hulu allah jomiraɗo yongi vibre ana sayatini hulu allah jomiraɗo jomiraɗo jomiraɗo jomiraɗo jomiraɗo jomiraɗo jomiraɗo jomiraɗo jomiraɗo oh. jomiraɗo jomiraɗo jomiraɗo samse Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. Samsi. Samarosi. sama waa ji jàmbaaru lislaam baram samsi Samarosi baram faajiru naajiru bintu yaanu ko ni yaamaanu ko ni gamanka. Samsi. Samsi. Samsi. Samsi. Samsi. Samsi. Samsi. Samsi. Samsi. Samsi. Samarosi. samsi samarosi jinna kiti saaya boloya saaya wonande allah saginande allahu wonande allah saginande allahu wonande allah saginande allahu hulu allahu hulu <laughs> allahu samadut o oh, yallay kenn le frère

jaaraama jàmbaarul islam waay samadu samadu samadu samadu samadu samadu samadu samadu hulu allahu samadu hulu allahu samadu samadu samadu samadu samadu samadu samadu Samadou Samadou Samadou Samadou Samadou Samadou Samadou Samadou Samadou Samadou Samadou Samadou Jinna Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow

Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow

c'est qui yow la kan Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow la xalif général des jinne le roi médecine traditionnelle du monde c'est king tàccu leen ma sëriñ bu baax a baax a baax la kan c'est yow la kan c'est qui yow kan monoko be tolote ge talate allah kan tan annabi kan tan ley udde dow udde hakkunde nden jidi kidon kon ginna kidi saya boloya saya wonande allah saginande allah hulu allah samadu alfa yu jayri alfa yu batino kurjinna sojinna olde koroyanna nabi yanna nabi dure durete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samsi sama ruushi samsi sama ruushi yawla kan yawla kan yawla kan c'est faux c'est pas vrai mu ne moom la laal la xam ngeen kii génne naa ci moom ay jinne yu bari bul dakoom jinne yi bari vayde ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne sax ay ñoom xaw ma abdallah xaw ma lan wala ah ahmada kurtukata jinne yu bari hey faw faw lu fun naange amaru yow xér naange inna allaha anna allaha billi baadi bashiran bashiran

funnaange amallahu funnaange inna allaha inna allaha kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi kullu baadi jinna kullu baadi kullu baadi kullu baadi so kullu baadi kullu baadi solo kai Firli. Ich firli. Firli. Firli. C'est fi indi. Ah? Moo ma fi indi. ma indi ma fi. lan moo tax nga topp xale bu jigéen topp ma ko de. toppoo moo ko capturé. kon nag lan mooy sa problème noo mer malaaka ak jinne melokaanu malaaka ak jinne nee na malaaka ak jinne bokk jinne bi nee na melokaanu malaaka ak jinne la yor noo mel noo mel dinosaure ah dinosaure dinosaure nee na dinosaure am nga lu dinosaure bokk jinne bi nee na malaaka ak jinne melokaanu malaaka <gasps> malaaka ak a wax moom force. Ah? indi. waaw. mu ne ma da ngay liggéey ak Thierno. mu ne. da liggéey ak Thierno. moo la indi fii pour mu ne dangay liggéey ak man moom maanaam mu indi la fii yow jinne bi malaayka bi pour nga liggéeyal. léegi yow fan nga jóge kan moo téye ndigam nee na ma bi day métti mu mën a sikki mën a sëkk kan mooy métti ndig bi. ah. teewuma ko sama bind la moo tax. sa bind la danga kaa di métti ndigam. ni laa bindoo. ah jógal bindoo parce da ngeen a jokkoo si nga la bindoo nga moom maanaam malayka ak jinne waaw malayka ak jinne nga ne ay yu mel noonu am na ay jinne yu mel noonu yu bëri ay fu façon xaaju malayka xaaju jinne waaw dañu wax ruuxaan comme ruuxaan nee na comme dinosaure am na dinosaure mooy def ni ah. waaw bokk yi jigéen loolu yow góor nga wala jigéen nga ah góor nga wala góor nga walla jigéen nga góor nga lan nga gën a mën sa àdduna ah eh waxal ñun mbokk yi xaw na tàng tuuti ah c'est chaud hein actuellement ñu ngi ci biti di def consultation eh sigil lan mooy sa problème nee na moom la laal la day dem ak a ñëw léegi xaaral ñu yëngalaat ko daal di koy génne rapidement parce que day dem ak a ñëw xaaral ma génne mouchoir en attendant waaw balaa ñu jël suñ temps fii